aca ñoo ngi noonu l'équipe régionale de Fatick ah, gaa ngi noonu tout droit coach ñoo ngi lay ziar jaatige région de Fatick ndaa mel ni gaa yi jiitu nañ leen fi de da ngeen xamoon naa jëre waaw mhm. da ngeen newoon ci yoon wala yàgg ngeen ak ah d' accord d' accord d' a yegsi stade bi quoi kii ah waaw waaw waaw foo moom ñu ji foo moom ñu jiitu mm-hmm. noonu la euh, moral est bon j'espère macha allah mm-hmm. waaw indi say poulain quoi comme ah daaw daa mel final woon ne General TV, no, give me that, give me that, camera, camera,